ayca bàkk ba jub na générique bi départ na jàngat làmb tàmbali na bàyyi jiili Père Birahim Ndiaye mu changé d'école bu bees changé logo bu bees mbokkee bu ngeen gisaatee logo wasaare bi nga xam ne changé nañ tuuti euh, pour wane beneen xar kanam boo xamante ne yéen ñii seetaan wasaare làmb dañ koy bokk ak bu ngeen gisee logo bi ne niñ ko defee woon ak léegi niñ ko defee nga xam ne euh, topp seen mbégte rek mooy suñu bànneex ma leen di jaajëfal fu waaye mën a nekk ci réew mi ak bitim réew di leen jaajëfalaat bu baax a baax a baax di leen baalu àq di leen baalu àq di ñaan yàlla suñu borom mi nga xamante ne moo am jéggal yàlla na suñu borom boole jéggal waaye wéetuma ci benn yoon ndax maa ngi ciy ànd ak sama xarit sama papa euh, ki nga xamante ni man naa ko bëggal sama bopp muy père Birame Ndiaye père bu baax di la siyaar. waaw ah, jërëjëf maa ngi auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. Hmm. rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. maa ngi nuyu mbokki internet yëpp. Hmm. ñi nga xam ne ñu ngi safoo euh, Wassare Lamb di ko seetaan di ko muy bitti ci bët. ñoo eh, ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant di leen baal wax di leen baal ñoom ñëpp. Hmm. di leen wax ñaan di ñaan sama kàddu yàlla na yàlla fekk leen ci jàmm ñoom ñëpp. Hmm. bi barakatu rasulullah sallallahu alayhi wa wa sallam eh, nuyu waa waa sud bi yëpp nag. Hmm, di ko teg ci loxo Bassirou Cissé eh, di ko teg kontaan nag ci tey ji toog ak yow. toog ak Abdou Khadir Kébé di sama doom di sama xarit moom yàllaa ko def ma soppe rek soppee naa ko ne ko raw parce que am na yar am na teggin hmm. euh, xoromu na xarit na ci li muy def tabit wax dëgg yàlla hmm. kon toog moom daf may am mbégte lool ci moom hmm. di ñaan yàlla suma kàddu di rek dégg nga yàlla nañ ko yàgg toog lool wax dëgg yàlla xale moom ma bég la daal dëgg la père euh, bi nga màggal jee ñëw laaj naa la noo dundee màggal gi gàmm gi tamit xam naa dinaa la ko laaj guddi Seydina Mohamed gàmm gi noo ko dundee waaw sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla rek yàlla ñu ko dund at yu bëree bëri waaye xam nga Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam bisam dafa yemul ak dara mm-hmm. waaw dafa moo gën a màgg lépp wallaahi lu ñuy màggal rek ci lool lañ ko reyee bi sallallahu alayhi ko kon tey jii màggal ak gàmmu gi yëpp tey jii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy baas bi dëgg la kon tey bernde nañ ci hmm. tubaarkàlla koñ bi màggal nañ ko maanaam wax yëpp def nañ ko nag hmm. waaw nañ ko daal dañ ko daal tuddee tubaarkàlla sant hmm. yàlla a a baax café gi ñëw na waaw euh, gisee changement ndax bu njëkk dama la daan yóbbu fee taxaw <laughs> tey dama laa indi nga toog de xew de waaw ma xool xam ne rek xam nga liggéey <laughs> li koy defal <laughs> ah. mooy li yokk xalaat bi dëgg la xam nga liggéey bu mu mën a doon rek la koy ah. avancé mooy lu nga chaque jour bu ñu xëyee mooy ñun muy caméraman yi. Hmm. muy euh, ñi nga xam ne ñooy euh, kii journalistes yi. ñëpp hmm. kenn ku ne daal. Hmm. mais xool di xëy di xool di yokk di yokk liggéey. dëgg la lii lépp ci liggéey bi la. waaw parce que dañ daan taxaw di léegi taxaw nga tokki xam nga taxaw. bu yàgg ci mag. wax dëgg yàlla yombul. waaw ah. waaw mag ta mag taxawaay bu yàgg jégu ko. Uh-huh. moog sëgg a ah. yem. waaw mag sëgg du sëgg lu yàgg. wallaahi wallaahi parce que dinaa demee noonu. mag boo jëm mag. di koy mooy jëm ci ay bët uh-huh. loxo bëñ wala tànk dëgg la non loxo sax bokk ci waaye bët bët ak bëñ ak tànk mun a ah, màgget fa lay commencé ah waaw mooy hmm. tànk yi rek hmm. kon tey bu ñu defee nii toog am na lu yaarees ko toog mel ni toog suñu saal hmm. di waxtaan waxtaan rek yaakaar naa yokkute la mais père yow xel bu rafet mu ngeen am la rek mais père yow yaa gën a dëgër sam papa de ndax yow ñu ngay yéeg ci escalier yi ak ñi ngay gis ñi ngay def sa mbaa moom premier rek da koy yëg soo waaw ñun ñëpp la ah ñun ñëpp la ah fii bi tamit xam nga boo xasee am soixante-dix ans jéem ko xam nga tamit da xam ne léegi mag ñëw na. Mm-hmm. da nga yàlla baaxee rek ngay wér di dem ak ñëw rek waaye tamit ma daa yaa ngi fenn kër mag la <laughs> yàlla na yàq yàq sew rek te euh. yàlla na ko fi yàlla bàyyi te may ko wér. amiin amiin wér ci la lépp rek. Ah. ñii ah. wér ci la lépp rek ñaan yàlla wér rek. Mm. feeg yàlla mi ñu may wér saxal ñu ci diine hmm. ah, tubaarkàlla suñu lépp rek mën nañu am rafet jort hmm. loolu àddina ko jërëjëf Père Birahim kon ah, Baye Cheikh ñu koy ñaanal ah, Baye Cheikh Kébé yàlla suñu borom guddal fanam loolu tamu ànd ak wér ba bépp naal boo nga xamante ne eh, njaboot gi fas yéene nañ ko ci moom suñu borom kàttanal ñu dooleel bañ defee ko nuñ ko bëggee Père tey dama bëggoon ñu waxtaan ci ngemb hmm. parce boo xoolee eh, keroog maa ngi koy wax ci biir waxtaan. Mm-hmm. man ni la damay gis mbir mbir yoo xamante ne dañuy jekk. Mm-hmm. nga ne ma luy jekk man la ngemb bi ngemb bi day rafet. nga ne ma mm-hmm. du du jekk mais mbir dafay jekk. am na ci luñ ci lu baree baree bare. taxawaayu ngemb ci làmb léegi par rapport ak bi ngay gisee ngemb façon ngembam xale yi. xale yi est que jar nañu jàngiwaat ngemb ci ñenn ñi wala ñoom ñëpp euh, seen ngemb ak seen ngemb ay jamono bu gën a tane. waaw loolu day. Eh, dinaa dagg tuuti tamit. Hmm. yóbbante la nuyoo sa papa. Hmm. maa ngi koy ziar di ko nuyu ko ñaanal gudd fan ak. amiin amiin amiin amiin xamante ku ñu mais hmm. si ay moom. xam naa ay mbokkam. maa ngi koy nuyu ko ziar di nuyu sa papa tamit. di ko ñaanal wér. Ah. bon li nga moo laaj. Eh, lu am solo la jëriñ. parce que gis nga làmb dafa xew. kenn ku nekk dugg ci làmb rek. jàng mono maanaam jàngoo baas ba. dëgg la maanaam ABCD ba. da ko war a jàng. parce que tubaab boo gisee ñu bari xam-xam. Mhm. buñ lay jàngal dañ lay jàngal commencement A B C D ba nga bokkal ko door a commencé boole ñaari arab. Mhm. ba ko kon a commencé. Mhm. moo ak complément ak affaire yooyu quoi. yooyu boo gisee maanaam dañuy jàng da war a jàng base. mbir ngemb dañ koy jàng. ngemb du neex ngemboo. parce que mbër man na war naa mën a takk ngemb hmm. ba mu mel ni slip maillot de bain bu sol boo xam ne bii boo bëggoon a jàpp ngembam day jafe hmm. waaye mu téye na des na dëgg la waaw leneen li foofu hmm. ñaareel bi mbër yaa am am bañ ci ngemb maanaam boobu boo ko ngembee dama ko war a ngembee ba mu tëgg ba nag war dara langut maanaam fees yi dafa war a dugg yii hmm. maanaam sa kanam hmm. boolu gêné wu ba nga xam ne bi am lu lay gêné loo xamee ne nii dafa am fu muy mettee foo xam ne bu yàggee man hmm. na laa gaañ wala dara gi mel noonu wala mën na laa booy xam nga booy xam naa ko boo yàggee am na noo xam ne boo di ngemboo boo boobu ngemb lu baax da lay booy dal na sama waa ji sëñ bu la booyee booy <laughs> bu ñu jógee Thiès ngay dox nga lii. voilà gis nga booy. bu yàggee. mën na laa def góom. la te bu defee góom mën na laa jural lu nekk. moo tax léegi dafa jaar yoon. la dañ la koy jàngal ni ñu koy defee. ba nga maanaam fi mu war a tegu yëpp dafa war a tegu. boo tegee doo gaañ loolu dañ koy jàng muy benn. Mm. ñaareel ba dégg nga ngemb dafa war a seere ba nga xam ne bii. Mm. day mel ni maay de fin boo xam ne bii. dana ràpp ci hmm. dafa ne waa ji bu dugalee loxoom bu hmm. mu jàpp sa ngemb day jafe loolu am jàng la moo tax xale yu jaaru ci mbappat waa ji ci bëri ñu ci bëri xamuñu dañuy ngemboo hmm. mais père tey ci làmb ji boo doon xool xale yi euh, ñi ci dàq ngemb ñoo xamante ne gis nga ni ngemb xale yi tey euh, gis naa ko ci ngemb démb yi yan xale nga mun a wax waaw man nag euh, gala ji mooy tax dootoo ko mën a xam bu njëkk am na ci ñoo xam ne ñi am na ci mbir yi mën a ngemb waa hmm. yi ma fa gis ñu ne ci kanam yëpp mën nañoo ngemb hmm. yo commencé jàmm seen ngembam rafet na Lac de Guiers ngembam rafet na hmm. Modou Lo ngembam rafet na Balla Gaye ngembam rafet na Boy Niang ngembam rafet na champion yooyu daal moo dama doon lim daal mais léegi pour nga xam ngemb bu rafet wala ngemb bu jekk naanu neexatu la xam parce que li ñuy këfaloo ci téere moo bari maanaam tikk ni ñuy takk téere dañ koy takk ba mel ni benn naa leen takkal sa digg ginnaaw dugal ci waaw dugal ci li biir ngemb doo xam sax ne dañoo def benn morceau aw ay téere dañu lépp takk ko sa digg ginnaaw loolu dootoo xam sax nañu loolu loolu dootu ngemb hmm. parce que gàllaaj yi muur na maanaam téere takk muur na sax waaw ngemb li ba dootoo xam na lii ngembul rafet la wala ngembul ya hmm. parce que gàllaaj yaa moo bari mais père gis naa loolu suñu jamono yoon ñoon yooyu amul gis naa ci ñetti mbër yoo xamante ni hmm. seen ngemb euh, bu ma duggsee ci làmb xaw ma nag ba xam euh, li may gis ñoom hmm. gis ci sama xel gis ci ñoom hmm. seen ngemb taaru na lool ko natt weesu euh, kenn ki mooy Serigne Ndiaye bu Faas boo xool ko damay gis ci jekkaay xaw ma jekkaayu ngemb la xaw ma moom la ci boppam moom mbër mi ñaare bi mooy Garga Garga Mbossé tamit bu ngemboo nga gis ko eh, da gis jekkaay bi nga xamante ne ngemb la jekk na ko ñetteel bi mooy seex Tidiane Niang ñett xale yooyu yëpp gis naa ci ñoom ngemb eh, ni muy def ci ñoom daal. waaw loolu sa bët la xam nga yow sa hmm. boo xoolee ni mu neex la. Hmm. nga xool xam ne kii naax na hmm. mu wala sama ñoom président. lu mu def day rafet sa bët. mais gis nga euh, même booy Fass boobu kii kii. Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye ñi hmm. gars yi ni xale séeréer yi ngemboo rek lay ngemboo hmm. day day tegale tegale ngemboo ci ginnaaw ba ci ginnaaw hmm. moo doo xam tey na mu ngemb ngemb bala ñoon xam ngemb rafet dafal de téere yi bañ a bari ñaari ndomba la ñett ñu takk la Garga Mbossé hmm. moom am na loo mën a loolu hmm. déggoo mais dama la wax ci biir wax bi ne la ñoom ni ni takkoo ci gàllaaj mooy tax doo xam sa mujj gi affaire décor ngemb li décor ngemb li day yàqu parce que ni ñuy takkoo gàllaaj dafa bari ba nga xam ne dootu xam ngemb ku mën a ngemb ngemb rafet hmm. loolu dëgg lenn yi tamit dinaa euh, mën naa jekk nga xam ni ngay ngemboo ba doo ci gaañ wala dootam sa ngemb na xëre jàpp na nga leen loolu mën a nekk ci biir waaye dafa am ci lu am solo bind day defar nit d'accord nga man bind bind yàlla mi bind nit ki ñu mm-hmm. nit romb la rek nga ne awaay kii rafet waay ay mm-hmm. waay kii jantal waay mm-hmm. loolu lay mbiru suñu borom la yàlla mooy defar nit moo xam ne mii de taay bi rafet forme bi rafet nga xam ne bu ngem booba def yaramu neen xam nga def yaramu neen nga naan kii rafet na ngemb rafet na ak ngemb loo xam ne dangaa wane sa aw rek nga muur ñu naan kii rafet na ah ngemb rafet yi ngemb rafetul bind bi rafet dëgg la ngeen doon rafetul parce que ay nit mënut a def yaramu mm-hmm. yàlla moo ko suturaal ba ne. Mm-hmm. mooy doomu aadama awra mu ngi commencé. Mm-hmm. ci maa surati wa rukubati la wax. awratu rajul maa bay na surati wa rukubati la dafa ne awray góor mu ngi commencé ci jumbo. jeexal ci ca ca suuf. loolu boo ko muuree mën ngaa julli. yàlla dégg la wax. kon tey jii boo ko fekkee ne yow loolu nga mën a nga def loolu fànn ci biti saa yu ne fànn ci biti hmm. dégg nga xam ne yow tey bu doon julli mënoo julli bu ñu nee rafet nga kay forme baa rafet hmm. bind baa rafet cuisse yi tubaarkaal génn moole yi génn moole yi rafet hmm. cuisse yi génn pectoraux yi génn pectoraux yi génn bras yi avant bras yi maanaam bind bi tubaarkaal rafet loolu nag mën naa nekk ci njool mën naa nekk ci ndaamu mën naa nekk ci digg bi nit digg bi nit parce que ñu ci bari ah des dañuy gudd rek mais duñu mat mbër. Mm-hmm. ñenn ñi dañuy gàtt mat mbër. dëgg la mais dafa am lu leen di manqué loolu dafa bëri ci doomu aadama. Mm-hmm. li ngay moom moo tax may la pour nga atta ci ku rafet ngemb noonu. Mm-hmm. jafe na parce que ni ñuy ngemboo léegi la. mais père kenn kenn xanaa ngemb nag euh, seen jamono. ni ngémb mel ak léegi ngémb li moom dañ koo moderniser père xale yi fi mu toll nii balaa ñu ngémb dañuy jël plus de téeméeri ndomb dugal ko suñu biir ak yeneen yoo xamante ne dañ ko ci ñëw fu nekk gondale gi noonu léegi yow noonu ak ni ñuy la ngémb li mu toll nii est-ce que mën nga jàngal xale yi ngémb bi ñu bëgg bi ko ngémb dugal gàllaaj ba pare ngémb ci kawam def ko mu taaru est-ce que mën nga leen ko jàngal waaw euh, mën ma leen ko jàngal mais mën naa leen digal hmm. mënuma leen ko jàngal mais mën leen digal hmm. li ma leen digal mooy ñu wàññi gàllaaj yu bëri yi téere yu bëri amul njëriñ hmm. téere yu hmm. njëriñ ci mbër gis nga li am ci mbër dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg du loolu xëy na bu ñu àggee ci waxtaan yaa la ci wax mais père loolu garaaw na de téere yu amul njëriñ ci amul njëriñ ci mbër maa la wax lii kay parce que mbër yi wax yow ma jaar ci lamb ma xam naa ko du ne du ne jaamu ci njariñ waaye dama ne bariwu ci njariñ bariwu ci njariñ dëgg la bariwu ci njariñ mm-hmm. parce que da ngay gis tey koo xam ne kii day indi camion camion bi ndaw yooyu lay tegale ay butéel rangale ko euh, lu mat cent butéel ci kanamam mm-hmm. yaa ngi dégg lu ma la am njombo day takkoo takkoo takkoo takkoo takkoo takkoo ba ñëw bu demee ñu boma ko mu daanu wala ñu door ko mu ne det wala boo xoolal mu téye mu fekk ñu mën a ñu bàyyi ko mën a deet hmm. wala boog action boobu soo fa koy daan boo xam ne yow mii fa nga toog di seetaan man ji da nga naan di mën di daanu daanuma man yow kii di ko daan naan gàllaaj la gàllaaj la naan déedéet hmm. fekk sax fekk sax du hmm. te loolu bu ñu ci biir waxtaan yàlla ci yàlla ba xam ne daan mbër mu defee ne mbër mbër ko daan fekk gàllaaj daanu ko gàllaaj daanu ko de fekk la ko daan du loolu xëy na bu ñu àggee ci waxtaan dañ ci àgg yaa ngi dégg li ma la loolu la mais gis nga comme ni nga ko nii. Hmm. comme ni nga ma ko expliqué nii. Hmm. dégg nga ma la dem euh, dégg hmm. li koy galaaj yu bari yooyu yëpp su ma leen a wax. dama leen a wàññi leen ko. père des fois wàññi leen ko. des fois parce que bari booba. amul leen daal. te parce que des fois mbir dem. fu nekk jëli ay gàllaaj indi te jouru lamb ji du am sax jot bi daanaka yi muy jëfandikoo sax du bari. kon bu amoon solo yëpp lay jëfandikoo. doo fa jël dara muy benn. Hmm. damay jox benn bàyyi leen kàddu gi. Hmm. mooy ñun ñëpp ay màggatu mbër lañ. Hmm. képp wax ma fi li ma fi juróomi mbër yoo xam ne juróomi mbër yoo xam ne seen doom champion lañ. juróomi mbër ci làmb ji suñu jamono. ñu da nga naan doom toj nañu làmb àgg nañ fi Balla Gaye yàgg. waaw waaw boo nee Balla ne Ama Baldé de gisaatuma keneen koo xamante ne. pourtant ñun ñii koo man boo demoon sama suuf escalier wala si laa kii saaku mm-hmm. saaku laa wax bu fees del mm-hmm. waaw chaque jour sama xel ngi ci sax pour dem gas sa terrain ba suul ko foofu mm-hmm. que bëggatuma sax benn mais père yow am naa gis naa ca benn doom boo xamante ne ah, mu ngoog waaye moom taay am na jabari bi waaw ah mais nga koo bàyyi mu bëri ji déedéet parce que moom amul caag bi boo ma ko xam ne amul ndoxtu laa ko ne tëreel laa ko ne arrêté gàcce nga may indi hmm. waaw hmm. parce que dañ naan cim doomu Birahim ji koy problème naa xam problème te gis naa ne ah. ah. ndoxtu bi demul ci moom hmm, te moom bëgg na ko bëggoon na ko hmm. non parce que du lu mu bëgg parce que football moo newoon ci ah, bopp football ak góor ak football football moo ne ci xol football moom jarale ko lu nekk ci moom moom waa Real la Real lay supporté moom le football moo ne moo dee ci xol bi lu la ci ñàkk sax di ma ko nëbb dégg nga ci ay seem ak yooyu ko hmm. mais loola mais bëri boobu noonu ma ko ñoore woon bu fekkoon nekk na ndaw ñoore ko di ko fooy noonu hmm. su ko bëggee mënatuma ci dara da ko continuer di ko def waaye ba ma xoolee xam ne kii hmm. bëri bi ne ci moom ndox bu war a ne ci moom neewu ci moom laa ko di teg ko ci suuf jàpp sa liggéey ana mu tey liggéeyam boobu moo koy jariñ moo may jariñ man ko parce lu bari wàcc na ma ko mel euh, suñu papa tubaabu joor yaa ah, yërëm te xaar xam ne doo naar naar Touré maa ngi moom la leen tubaar kàlla mu ne tay la moo bëggoon bëre baba moo pour mu bëre mhm. moom moom mooy déglu xëy na dina déglu officiel bi man maa ko daan entraîné mu ñëw fajar di ma ñëw ma di ko yóbbu terrain géej maa ngi moom ak basuka mhm. ak ku ñuy wax Adama fajar ne oto bu ma jógee jàkka ji maa ngi ne fekk sama buntu kër ñu gaari seen oto mhm. maa leen jël lekk géej ak six heures ba neuf heures maa ngi mhm. xam naa waaye gis nga nit lu muy bëgg loo koy jàppal day fekk mooy muy lu mu bëgg dëgg la ñu mel ni xale bi bëgg jàng mhm. nga jàppale ko mu jàng waaye xale bi néew nangu la jàng bëggul jàng loolu sonn sonn pour mu bëgg jàng dina jafe dana jafe am na solo parce que nit ku nekk rek ci lépp lu mu nekk da cee mm. war a euh, góorgóorlu jëmbat ci li nga xamante ni mooy bëgg li njëkk par mm. léegi ñu gis euh, beneen bi muy euh, mbër yi nga xamante ni dañuy dugg si ci làmb mm. te bu ñu ñëwee dañuy ngem ngemb bi nga ngemb diggante deux heures ngay ngemb hmm. ba yaa war a bëre vingt une heure wala vingt heures hmm. moment boobu ngay sottee ndox di naan ci gàllaaj yi euh, ñu tarñaan euh, mbër mu war a tuur ndox tuur ndox bi day toj ay gàllaajam wala day def yooyu hmm. est que loolu loolu loolu bokk na ci loo xamante ni mën na yàqal mbër te parce que diinaa boobu yëpp peer nga nar ko nekk ci journée làmb euh, te doo tuur ndox doo te yaa ngi naan yaa ngi sotteeku loolu est-ce naa nekk. waaw loolu xalaat bu ñuy def ci boppam mbër mi rek la. Hmm. waaye ku naan lu bari foog nga saw. Hmm. mënoo di toog ak ngemb bi dama ne. Hmm. ku naan lu bari. ku ne xëy suba bu suba ngoon di naan. jël beneen. di mar di naan. foog boo bariwul looy naan. tamit doo saw lu bari. mën ngaa xëy ba ngoon benn yoon wala ñaar yoon ngay tuur ndox. mu ngi mel ni dem tool dem àll ba dem douche tey mën ngaa xëy dem douche ne bala ngaa dema douche suba wala wala ëllëg wala ngoon wala guddi yooyu ci nit ki hmm, hmm. waaye dem saf nga ngemb bëgg a dem tuur nga tuur lox tojul gàllaaj hmm. déedéet xam nga lu toj njàpp la toj njàpp la toj waaye tojul gàllaaj cëm magum bi lay wax ah waaw yow tam boo boo jàppee boo la la fa euh, li toj jàpp kay. waaw kuy julli xam nga li toj jàpp. dëgg la jaruma di ko lim. Mhm. waaye taw sel tuur ndox ca la bokk. boo tuuree ndox kay amatoo jàpp te mbër buy bëre dafa war a ànd ak njàpp. Mhm. njàpp boobu nag tekkiwul ne moo di nga tax mooy tax nga daan de. Mhm. wala tekkiwul ne doo daanu déedéet. mais maanaam njàpp dafay aar doomu aadama. maanaam sax bëriwuloo defuloo dara nii. sooy génn sa buntu kër war ngaa jàpp. boo mu la nekkee nga def julli ñaar rakka hmm. naafila ko suñu borom hmm. bu ci def domoon naa julli ñaar rakka yi mais pour li may wuti ma mën ko am déedéet bokkaale la hmm. dégg li ma la bul def ne man lii kat bëggoon euh, am lu may régler di moo ñaan ñu ñaar ñaar rakka yi su ma ko defee dinaa ko am déedéet da ngay def ko jaamoo ko yàlla génn sa buntu ko ba jàpp fekk jàpp nga ba set sangu suñu sangu jàpp def ñaar rakka naafila ñaar raaka saa fàtte ak saar loo ca xam nga daal sëlmal dem dox ca soxla jaamu yàlla la hmm. léegi nag booy mbëre ji tey ji mu bëri di la xool lépp di la xool saytaane yéen ñi nga xam ak ñi nga xam ñu ngi gisul mbir la jaaj nga ànd ak njàpp mën na laa aar dëgg la moo tax ñu naan mbër day ànd ànd ak njàpp hmm. jàpp pour lu la aar la hmm. parce que doomu aadama fii bi tey ji mbëriwu ñu dara waaye ku ci nekk tey ji war nga tey boo tooree ndox dugg ci dus bi jàppaat ànd ak sa jàpp doomu aadama julli bi warul tàggoog Hmm. loolu feeg yàlla nga la koy may da nga war a hmm. waaye di jàpp day toj galaaj yu bëri galaaj yi dañ leen di yóbbu hmm. waaw dañ téere bi mooy aar solo si bi ñaa gis ci biir galaaj bi au boobu ñëwee mooy tax galaaj bi du sof du àgg ci bi ñu bari xamuñu loolu pour ñoom téere dañ koy aw noonu rek déedéet ah, kon aw bi pour protéger waaw ah. sobe bi bañ a dugg sobe ba jël am na lu bari mën a yàqu biir téere bi yooyu hmm. ak alxuraan bi ñu koy bind ak yu noonu hmm. mais sobe si du mën a dugg ci biir parce que awriñ ko moom ne dem hmm. moo loo tax ñu dem fay ñu dem mu wóor la ah. am na solo père loolu so sobe toujours dootu nañ moytu sobe rek la mais teel a sëy ci ngoon ba bañ a saw bi yooyu yëpp bon day fekk na booba naam jàppaat dégg nga continuer sa sa gàllaaj yàqul dara yàqul dara waaw am na solo Pierre ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax mm-hmm. euh, ci ànd bi rafet bi nga xamante ni ànd nañ ko Pierre Birahim jaay mm-hmm. euh, ñu bari nag ñu naan ma Pierre Birahim dañ koy invité ñuy ñëw Pierre Birahim wasaare làmb la nekk mm-hmm. euh, ñoo ànd di liggéey mu nekk suñu papa di dooleel ci ci ci liggéey bi ba lépp loo xamante rek xëy na lënt na ci suñuy suñuy bët Euh, hmm. père dimbali ñu ci jàppale ñu ñu koy ñaanal yàlla suñ borom mu guddal fanam loolu te mu ànd ak wér hmm. euh, mbokk yi nag ba tey ñu ngi leen xamal ni euh, am na ci xale yoo xamante ni ci moment bii ñuy wax ak yéen ñu ngi génn ci réew mi di jël gaal jëm bitim réew hmm. ñu leen xamal ni rek tukki daa dalub xel waaye du ku toog sa réew torox gëmaat yàlla bu baax a baax a baax yàlla dañ koy gën yàlla dañ koy wóolu mm. yàlla suñu borom lépp lu mu dogal rek mm. ah, ci jaam dañ koy nangu mm. am na ci ñoo xamante ne dinañ dund ba faatu ba génn àdduna duñ am téeméeri junni yu bokk ndey ak am na ci ñoo xam ne dinañ dund ba faatu doon ay milliardaire am na ñoo xam ne dinañ dund ba génn àdduna cent mille francs duñ ko weesu loolu ndogalu suñu borom la euh, nañ gëmaat yàlla bu baax a baax a baax xale yi ñu gën a góorgóorluwaat xale yi ñu gën a taxawaat parce que ñii ñi ñuy faatoo ci géej gi metti na mm-hmm. suñu koñ père bi laay bërki démb rek am na ci ñett xale yoo xamante ne mm-hmm. dem nañ ci ba génn nañ ci àdduna mm-hmm. mu doon loo xamante ne lu metti la mu doon loo xamante ne xale yi ñëpp leen xam kenn ki si karkat la woon ñu ñëpp a ko xamoon mu doon loo xamante ne lu metti la lu metti la xale yi ba tey ñu dem père waaw xam nga xale yi dem bi euh, ku ci jige sa doom Hmm. wala sa jarbaat wala koy waxtaanal hmm. wala xale boo xam ne bii jigéen ñu mag ñi di waxtaan ak ñoom mag ñi bu ñu leen jay hmm. naa leen boo tukkiwul doo tekki wala doomi jiiri ji kat tekki na daa tukkiwul wala doomi basir ji kat tokki na waaye da tukki na da gis nga moo tabax immeuble bii moo am gaare 4x4 bii déedéet kooku wërsëg bu mu war a am rek la dëgg la wallaahi père wërsëg bu jaar ci dundam la li nga wax léegi dafa jiite lépp li ngay nit dund na ba dee mos a daje lépp fi lañ koy bàyyi. Mm-hmm. àddina alal bari bari fi koy bàyyi. wallaay père dégg nga arab man ansa maata wa man maata faata. Mm-hmm. ku dund da ngay deete ku dee ñu fàtte la. Mm-hmm. amul nii amul laa ku dund da nga deete boo dee ñu fàtte la. kenn mënu ci dara. loolu la yàlla bu ñu ko bindee. kon tey xale yi dañu dellu xalaat tey nit tukki mën naa ba waaye jaara ci yoon wi. soo demee bu ñu la may sa visa demal bu ñu la may sa visa xam dama faa war a dama faa war a bis moo ko réer wala moo war faa añi tey amul kenn ku mën a fexe ba sama tànk du fa teg man ñu dem naa États-Unis hmm. mais bi ma fay dem hmm. xalaatuma woon ne états bi ma ne cëpp sama tànk xalaatuma ne sama tànk dina ma sa def ci réew mi hmm. waaye ba mu jotee dafa yomb dëgg la màkk ba ma fay dem hmm. tamit noonu la bi ma toogee ci kaaba gi ci marba ba nii hmm. damaa doon sama tànk waa daal lii mooy màkk màkk lii mooy kaaba gi ma daan gis ci télévision bi kayit yi ci journal yeeg yooyu ba xam ne yàlla lu tudd ci jàmm rek booy gëm leen yàlla hmm. delluwaat leen xam ne yàlla yor seen wërsëg te nit ñaa ngi tedd fii ci Sénégal yàppaama soo métier amul métier boo xam ne métier jubal rekk a bon métier nax nit njéem a lekkaala defe na rëcc nga fekk rëccoo ñu bañ a basé ci état. waaw ñu gëm suñu ma état dafa mën lii yow nga mën lii. Mm-hmm. saa yoo xëy daani sa rek. wallaahi seet lépp loo xam lu la rek. Mm-hmm. jéem mm-hmm. maa ngi lay wax toujours toujours ma du ma dañ di ko wax xale yi. bu leen moytu leen merum waajur. moytu leen merum waajur. moytu leen merum waajur. sa waajur fexeel sa xolam di sedd. jili te lii sa papa bu ko déggee si rajo na dina xam ne li ma wax dëgg la. Mhm. ku ci waajur dégg dina xam ne waxuma ko pour man waxuma ko waaye dama ne. Mhm. yàllaa ko wax. dëgg la bu dul waalidayni ihsaan alxuraan nañu ko wax. Mhm. rafetal na commencé sa ñaari waajur. bu ngeen ma jaamoo rafetal leen seen diggante seen waajur kon gis nga xale yi li ngeen di def bu ko xeeb bu ngeen bëggee mu dem ci kanam di avance lu ngeen yóotu jot ko fexe leen ba góorgóorlu ak seen diggante ak seen i waajur. Bachir mu nekk fii weer wu dee mu fay ku orange moo ne papa. seetal affaire bi ñëw na. ah hmm. mu ne lan mu ne waa seetal sama orange ma ne mu xool loo ko yónnee niroowul ak doyaal jooy bi toog ci yónneewul bàyyam yónneewul ndeyam hmm. nit hmm. te bàyyi woro te gis nga lu ñu gën teel teel suñu àddina mooy di woro ku la ci di gauche te jëm droite la jëm ku la droite la jëm gauche te jëm jàdd droite xam nga loolu loolu dañ koy kafe defe ne def nga ndam fekk defoo ndam xale yi takk leen seen diggante jàng métier njàng tey jii mën na laa yóbbu fu ne. Hmm. ñàkk jàng rek a bon. mais boo jàng tamit jàngil métier. Hmm. jàngil métier te métier moom boo ko seetlee te góorgóorlu ci dina ci am teraanga. Hmm. waaye jël bateau di fees seen jàll man biñ ko bi ma biñ ko bi ñu wanee ñu ñu dina def ci benn camionnette di jàll nit ñi mel ni kuy jël ay saaku ceeb ay saaku gerte di xool ba sama yoon daw. ay jën xool jë vanne yi di sànni ñi comme ay jën. kan du ko xool séeram day daw ah ay jeunes yu ndaw yi demagul fenn jàpp yi ngeen sànni comme ay jën comme ay jën te tey la gën a bëreet encore mais ni dañ leen a xabtal metti ah, ku ci am doom daal waxtaanal ak moom ku ci am jarbaat waxtaanal ak moom hmm. ku ci am sët wala waxtaanal ak moom ku ci am sa morom joo xam ne loolu la xalaat naa la booy nañ def nii ne ko tegal ci suuf hmm. ba ñu dundee ba léegi yàgg ñu ngi lekk ñu ngi daan nañ góorgóorlu fii bu ñu war a tukki dañ tukki jërëjëf jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaara làmb loolu nag benn entre parenthèse la woon bu ñu indi woon ngir di ko baaxee ñi nga xamante ne ñooy suñuy frère ñooy suñuy mag ñooy suñuy rak euh, di leen jaajëfalaat bu baax a baax a baax euh, loolu moo nekkoon première partie bi bàyyi jili la père Birahim Ndiaye euh, ba ci kanam tuuti ñu ñëwaat ci deuxième partie bi indi combat décortiqué ko incha allah jërëjëf père jërëjëf wasaara làmb ba laa ñaari yoon. fon boo jaar booba laa mëne foo jaar fafa laa mëne dama mën ci bii boor mën ca bee boor mën ci yi boor ak ci yeley boor bàyyi fàtt njaay nu roowu maag ñoom cuuna rëy ma juub waa na roy ma saay maa ko baaxi jeeg ñii ma yor si jeeg